gouvernement bi eh, est-ce que mënal na dala mbas mi la feebar bi moo ma ci jaaxal termine yéene kaay ne déedéet xanaa tale impuissance moo fi mar de taali waaw waaw parce que nag gis nga ji le ma ngay xëy nag di gën a kon kalaate ci réew mi di ilaha illallah dama ne la bis bu ne waaw kaa yi day gën di yokk laa la wax te xëyaguñ benn yoon dégg ne kaa yi wàññeeku na looloo jaaxal ñëpp dama ne la bërëb yu bëree bëri kon ci biir Sénégal gi lay jàngoro ju fi mu nekk nii dugg na ba te xam nga moo ca gën a doy waar waaw nit ñi dama ne la kon dañuy dëgg mbas mi kon te ñu xam nag fan lañ ko jëlee di kaa communautaire ya loolee sax nag moo tere ne la gouvernement bi ah, ah, waaw waaw yéeni kaa gi ne demal ca Kolda corona ca Mbour corona ak yeneen gox ak yeneen gox sax laa la wax ni lée bàyyul benn gox dëgg la Ousmane Dia mi nga xam ne nag mooy directeur des établissements de santé ci tribune yéene kaay waaw nee boo sàgganee ramasse bi léegi mu commencé waat couvre-feu bu leen ko écarté de mën naa ne de si ay gox goxaa tamit da leen leen delloowaat na ca biir néeg ya confinement maa ko wax parce que xam nañ Ndakaaru njaay jël Jóob Thiès Diourbel ak Ziguinchor waaw ñoo jiitu 24 heures yéene kaay ne Dakar kay benn ci communautaire dama ne la yaakaar ju doogul ba léegi ni la dee déedéet parce ñaar ci ay doomu aadama kon deewaat nañu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bog ne professeur Seydi de waaw lii xew nii ci cas communautaire yi nga xam ne ko danoo tasaaro waaw mbir mi beetu ko de aha professeur Seydi ne dama ne lii ñuy dund nii kon fi mu nii miti na genn xeetu miti koo xam ne dawoo sàgganee nag dana fi gën a miti waaye déet waaye Moussa Seydi ne ah kay critique a dugg nag guta goo xam ne kon maar day taali waaw la dernière barrière communautaire waaw masque ay waaye ana suñu hôpital yi nga xam ne kon ñoom lañ yaakaar enquête yéene kaay ay milliards moom lañ la ngir mu nekk parc des princes suñu hôpitaux yi lée furaas daal di xideen hôpital Dalal Jàmm ñeenti at yàllaa ngi ni lee waaw mënta dem mënta dik doorul fayul xeexul atewul xeex te problème bi nag problème bi yëpp mooy bloc opératoire waaw looloo tax ba benn activité kon mënu faa dem nag la wax les ko yéene kaay ne gis Dalal Jàmm boobee waaw dama la dispensaire bu mag la dispensaire la naar day taali waaw waaw parce que docteur Mamadou Diouf ah nee PCA bi nga xam ne kon dafa démissionné barki dee boo njaay la mu def moo ànd ak fasaa éloquent te loolee day wane nag problème yu rëy yi nga xam kon moom la Sénégal nekke problème mu farata la ñu ban mooy jiitoog bu prix laa la wax hôpital bi dispensaire bu mag la point barre mbaalo ja càm de waaw nee na gis nga Dalal Jàmm boobee dispensaire bu mag la yow président conseil d'administration yu suñu hôpital yii amuñu salaire amuñu oto bu ñëwee teew bu ñuy ñibbi ñu jox leen weccet lii dee mooy ba sur saane xoolal ma rek kit yu jalis yi la ñañuy jox marché ba changé wul ba léegi de ña fa nekkoon daa la fa nekk ba tey fournisseur yi maa la ko hélas Ndiaye waaw ndaw da ca waaw nee na man sama rakku papa tàggee Pape Demba Bitèye directeur général bu Sénélec waaw ca réunion boo xam ne doon na ko amal ak syndicaliste yi gars xaw nañ koo rey Pape Demba Bitèye dañ koo jàpp di ko ŋàññi di ko critiquer di ko duut ay laaj yoo xam ne kon maar day daali mënu caa génn xooj la ko def parce que directeur bu day nee nañ ko wan ñu contrat bi nga xam ne kon moo dakal contrat bi ak la à décision de justice ba ak nga wax ñu Sénélec bañ ngaañ-ngaañ la ca mën a jëlee sonn nañ de dama ne la xoolal seen compte bi nga xam ne moo nekk ca Ecobank bala ak ñaari milliards daanaka ak genn wàll waaw dañu koo bloqué de mar taali dama ne la Sénégal kay dem nañ ba bind àttekat bi laa la wax ngir mu teggi loxo te waa dañ ne Amadou Ly nekkatul DG wu Akilee eh yéeway te ay avocat wu Sénégal xam le nañu ne bu ñu débloqué nag maanaam seen compte yii waaw Sénégal dana delluwaat nag fa mu nekkoon de mar taali ate bi kay la 24 août la la rek xalaatul sax ñuy ate ñàkkal ak il la ci kaw israéliens yi wala di jéem a jëfandikoo ARMP déstabiliser ak il la ngir indi israéliens yi duñ ko nangu moo tax président Macky Sall la waxal na def attention ci dossier bi Omar Faye leeral askan wa yemu ci coowal Sénégal ak ak léegi ah njiital leeral askan wi ci évidence Sénégal ne président Macky Sall ci boppam moo war a waa ak balaa musiba mbaaba ko ma di am cay yorin gi direct news en tout cas yorinu murit yi passé woon laa la wax ñuy xalaat nag waaye nit ñuy dajalee xaalis tarkal la yéen kaay pa dogoy fay bi ne xanaa xamoo leen tubaab bi mës naa laaj Cheikh Ahmadou Bamba ne ko nan ngay def ba ñii di la jox ñaar fukki dërëm ak juróom-ñetti fukk te ñun ñetti dërëm yi ñu war a versé impôt bi doon problème Serigne Touba ne man li may def yëpp dama koy liggéey ci yoonu yàlla laay investir ngir ñëpp mën a jëriñoo te yéen nag li ngeen di def ci la yem ca la ilaha illallah ko fii ak ñaari fan ne commission politique ba ca boppam dafa war a commencé waat nag daar daar en tout cas ca jamono jooje tribune yéene kaay nee na waaw gaañaa ngay ñaxtu troisième mandat wa Alassane Dramane Ouattara vox populi ne ñeenti doomu aadama ñàkk fa seenu bakkan allahu akbar alluntin ci yéene kaay gi waaw ne Afrique sowu jant ci volcan la toog allahu akbar ca jamono jooje tribune yéene kaay nee diggante Aïda Diallo de ak Serigne Saliou Thioune waaw seeni taalibe xeex ay Aïda Mbodj ñaw source année door na soutenance thèse ba doctorat ba en relation internationale et diplomatie maa la ko wax député Aïda Mbodj kay mention très honorable ak félicitation au jury ba jàng daal du wees <laughs> mais xoolal docteur Aïda Mbodj nag ak lu mu jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng nañu dimbali rek bu mu ñu fàtteel suñu pétrole parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la